Rosner Ali Soutin maa ngi lay nuyu. bu baax te nga nekk docteur en droit consultant international tey jii euh, ñuy waxtaan ci diggante Mali ak Sénégal laaj bu njëkk bi lay laaj moom mooy historiquement lan mooy relation bi dox ci diggante Sénégal ak Mali. waa Sénégal ak Mali ñaari réew yoo xam ne kenn war leen mën a takkalee. ndax ci histoire am na lu ñu tuddee Séné Mali am na lu ñu tuddee AOF. di Afrique de l'Ouest Afrique sow jant boo xam ne capital bi mi ngi nekkoon Dakar mi ngi nekkoon fii Sénégal kon ñoo bokk histoire ñoo bokk euh, colonisation maanaam tubaab bi ñu noot bi français bi moo tax boo demee Mali langue officielle français la Sénégal langue officielle tamit français la kon ñoo bokk histoire ba pare euh, boo xoolee sax ci wàllu culture euh, ñaari peuple yoo xam ne ñu nirooluñu ndax Sénégal ak Mali yëpp diine euh, l'islam moo fa gën sax ba pare euh, euh, ci wàllu ci wàllu ci wàllu xeet boo gisee ci ci misaal Sénégal bëri na ay bambara Mali fa la ëppee te am na ay bambara yoo xam ne ñu ngi Sénégal te duñu malien loolu moo lay woon ni kon ba benn misaal la rek am na yeneen am na Soninké am na yeneen ci lee da nga gis ay Njaay Mali da nga gis ay Keita Sénégal yoo xam ne ñii malien lañu ñii sénégalais lañu kon boo xoolee ba xool benn peuple la benn euh, diine la bu dominé doonte am na yeneen diine ci ñaari réew yëpp nga xam ne kon histoire boole na leen cosaan boole na leen kon ñoom ñoo war a góorlu góorgóorlu ba mën a ànd te bañ ku leen xaajale voilà loolu daal laa mën a wax ci euh, wàllu tey jii boo ñu doon wax ci diggante Mali ak senegal ba léegi ban réew moo ci gën a soxla moroomam. waaw loolu dina naka dee wax. xam nga li ñëpp di gis mooy euh, maliens yu bari jaaree Tamba Kaolack Kidira Kidira euh, Tamba Kaolack pour mën a dugg Sénégal ngir ut fi loo xam ne amul Mali mu mel ni jënu jënu géej ndax Mali amul géej jeex la am kon te am na jën lu mel ni xorom ndax ku amul euh, géej wala yu mel noonu sa xorom du bari kon euh, camion malien yu bëri dañu da nga leen di gis ci yoon bi diggante Tamba Ngàcc Nawde Kawoon ñu ñëw pour jël xorom yóbbu ko waaye tam am na Sénégalais yu bari yu dem Mali di daan seen doole kon dina nakkaree wax kan moo gën a soxla sa morom dañ jàpp daal ñoom ñaar ñëpp ku ne soxla na sa morom te comme histoire boole na leen ñoom ñaar ne kenn mënul bàyyi sa morom. am na ay marché malien yu Sénégal yi bëgg lool. ñu mhm. jaay ay fuddan ñu jaay ay ay ay uul ñu jaay ay konkorong ñu jaay ay eh, eh, eh, maanaam yu bëri yoo xam ne Mali la gën a bëri Sénégal comme ku ci ne solo nga sa borom ndax am na lu ne Sénégal te bëriwul Mali. amit lu ne Mali te bëriwul Sénégal kon daal nañ jàpp ne ñoom ñëpp ne soxla na sa morom loolu daal moo wax bu gën a rafet voilà tey jii nga gis ni euh, ci ay jamono bi ay Assimi Goïta toogee ci boppu réewu Mali euh, gannaaw coup d'état bi amoon euh, foofule ñu gis ni CEDEAO dafa tegoon ay sanctions économiques yu diis ci ndoddu Mali yan ban la mën a tirer ci sanctions économiques yooyu nga xam ni CEDEAO tegoon na ko ci ndoddu Mali avant mu koy dindi mu juróon coow lu bari. waa laaj boobu am na solo lool. ndax xam nga d'abord coup d'état kenn mënu koo nangu ndax bu ñu ko nangoon Sénégal sax du am jàmm parce que nangu coup d'état mooy ki ngeen fal bu leen neexul rek dem leen pale ngeen wàccee ko xam nga loolu kenn mënu ko nangu waa xëy na am na yeneen yoon yoo xam ne mën nga mën nga ko ci jaar bu fekkee ne njiit yi arrangé wuñu réew mi waaye coup d'état wax dëgg yàlla kenn mënu koo nangu ci réew kon bu amee coup d'état ci jiitee Afrique sowu jant di CEDEAO ci yenn wàll yi moom am na sañ-sañ jël ay sanction ndax nit ci lépp looy def rek da nga ko teg ci charte moo xam alquran la moo xam euh, téere chrétien la moo xam loi la moo xam convention internationale da nga wax ne jël naa sanction temps ndax loi bi téere bii moom ma ko may te CEDEAO yoon may na ko mu jël sanction te coup d'état bu amee lu mot jël sanction la te bu sanction amee il faut état yëpp tënku ci ndax CEDEAO dajalewul ay nit ay état la dajal kon ñi fa nekkal état yi ñoom ñoo booloo pour indi CEDEAO kon yow boo nee bokk naa CEDEAO ah boo nee bokk naa CEDEAO loolu man man pare naa pour tënku ci ndogalu CEDEAO parce que am na réew yoo xam ne dañuy juum bu cour CEDEAO jëlee sanction wala ba jël décision ñu ne ñi jël décision dañoo manqué dañoo war a dem retraite wala euh, sa si réew amul droit bi amul droit bi déedéet loolu mënul ne mënoo bokk ci kuréel jox ko sa baat mu dogal nga ne dogal doo ko respecté loolu loolu taaxan la léegi nag li ñu war a seet mooy. Mm-hmm. sanction yooyu est-ce que dina am ab ndax sanction boo xoolee euh, utuñu lu sonnal malien béykat malien nappkat. malien bu jigéen buy jaay ci marché wala bu jaay cuub sanction du pour moom ndax moom deful dara dafa toog kër ñu ne ko coup am kon ñi ñi def coup ñoom la sanction bi war a dal kon boo nee euh, pétrole du dugg wala lii du dugg war nga fexe ba décision boobu sanction boobu daan boobu bu mu sonal koo xam ne yoonam newu ca loolu nag moo jafe sanctionné boo ko woo jëlee jëlee du pour sonal malien wa bëgg rek teg pression ci ñi jiite Mali pour ñu bàyyi coup d'état dem élection malien yi fal ku leen neex loolu mooy njeexital sanction waaye sanction bu ñu ko jëlee du pour sonal malien malien kay moom xanaa boo ko yërëmul doo ko so doo doo ko sonal moom toog de dañu ñëw moom malien fal seen président nit ñëw rek def coup d'état ne ki ngeen fal man dindi naa ko ñëw naa toog loolu xanaa ko ko ko yaa ngi tooñ Mali kon bu sanction ñëwee waroo sanction popula waroo sanction population Mali ki nga war a mooy <coughs> ñi jiite Mali mais kon bu ñu jëlee sanction sanction yi dañu bëgg rek pour mu bu mettee ci Mali population bi teg pression ci ñi leen jiite pour ñi leen jiite dellu si ci loo xam ne day dindi sanction loolu mooy sanction waaye kenn utu ci sonal. population yi xale yi élèves yi étudiants yi xam ne ñoom defuñu coup d'état. Rosner Ali Soutin gannaaw sanction yooyu ba ñu ko daal di teggee euh, gis nga tey ji Macky Sall dem wutali euh, amal ab visite foofule ca ca Mali euh, visite boobule ban analyse nga si def lan lañ si mën a xaar Macky Sall lu ko tax a jóg tànku jàmm wàllum koom-koom ban analyse nga si def mu demee tamit comme en tant que président bu Union africaine. waa président Macky Sall loolu yëpp la war a boole ndax Mali ak Sénégal benn lañu kon laata ñuy wax sa waxu CEDEAO président war na dem ci Mali am fa ay mag am fa ay rakk muy dëkk boo xam ne euh, ñaari dëkk yi kenn leen kenn leen séparé dem fa pour defal maliens yi ndax bu demee sax gis njiitu Mali du kookoo ko soxal daf ko dafa gis njiitu Mali en tant que représentant malien yi comme Mali moo tax mu dem Mali waaye du njiitu Mali moo tax ci ci jëmmam kon bu fekkee ne yow sa dëkkandoor am na jafe-jafe war nga fa daaw dem war nga fa gaaw a dem pour fay daay bi benn ñaareel bi moom président Union africaine la kon dëkku Afrique yëpp ko intéressé te foo xam ne am na problème war na fa dem en tant que président Union africaine pour waxtaan ak ñoom pour ñu dellu siwaat ci normal normal mooy lan mooy ki jiite réew mi mooy ñiiñ ci maliens yi fal waaye di ko def coup d'état kon moo defee coup d'état xam ne loo naqadi da jàpp nga ni ci ki ñu fal liggéeyul wala def na li def na lee loolu yëpp am nga ses raisons waaye boo fa toogee c'est juste pour normaliser réew mi maanaam gaawal def li ngay def organiser élection maliens yi fal ku leen neex kon loolu mooy sensu sanction maanaam na toujours dañuy bëgg rek ci lu mu gën a gaawee ngeen dellu si waat ci loo xam ne loolu la yoon wax mooy ki jiite Mali na neex malien yi waaye da ko xam ne day def coup d'état kon président de la république bu Sénégal war na dem Mali en tant que njiitu réewu Sénégal war na dem Mali en tant que euh, njiitu Union africaine pour dox fa tànku jàmm pour waxtaan ak ñoom pour ñu bañ a def lenn lu yàq euh, jàmmu malien yi lenn lu yàq jàmm africain yi kon dem Mali moom lu jaadu la te yéex na ko def sax ci sama xalaat. lan moo mën a rataxaatal diggante euh, Sénégal ak Mali gannaaw ñagas-ñagas bi nga xam ne peut-être jàpp nañ ni euh, sanction économique yi def nañ ko Macky Sall naka la war a doxalee ba euh, diggante Sénégal ak Mali rataxaat comme avant. xam nga Macky Sall ak Sénégal jotewuñu dara ak Mali ndax Sénégal bu bokkee CEDEAO CEDEAO jël ko jël ay sanctions ci Mali. Sénégal da ci war a tënku ak réewu CEDEAO CEDEAO yëpp ndax yoon boo xam ne moo kawee réew yi dañ ko war a respecté ci chaque réew léegi man gaw ma ni don dëgg la Sénégal na xaw na am tuuti ñagas-ñagas ak pays yu ko wër yëpp xëy na ñu bëri lañuy wax ne dafa am ay complexe parce que Sénégalais yi ñoo jàpp nañu ñoom ñoo raw réew yu bëri ci wàllu politique ci wàllu démocratie pare di ko wax loolu nag mun dama ñuy neex pays yi ñu wër ah boo xoolee ah, problème mu yaay jaame bi gis nga président bu jógee dëkkam ñëw jéggi Sénégal dem Gambie pour régler fa problème bi xam nga ah, am njagas njagas am na mais daal diggante Sénégal ak Mali du njagas njagas boo xam ne lu raaw la jàmm yàgg na am ci ñaari réew yi jaxasoo bi am na bari na. ma jàpp rek ni xëy na situation bee demee noonu bu paree bul fàtte ni avant lii de am Mali dafa am ay jafe-jafe boo demee ci bët gannaaru Mali coow bari na fa lool attentat am na fa am na place yoo xam ne sax gouvernement mënu ci dara ñeneen ñoo ko ñeneen ñoo ko jiite loolu yëpp day indi jafe-jafe boo xam ni bu ñu jàpp rek ni coup d'état bi moo ko indi mais jafe-jafe yi bari na te li ci am solo daal mooy ñu toog waxtaan moo tax ma yaakaar ne li président de la République na te wóoroon bu fa demee. dina waxtaan nax ñoom en tant que président ñoo fekk dina waxtaan ak ñoom tamit en tant que frère ndax Sénégal ak Mali ñaari réew loo xam ne ay ay mbokk ay mbokk mbokk moo dox sa diggante. kon daal xëy na njagas njagas bëriwul waaye dañu fexe ba jàmm dellu si. Euh, dernière question euh, Rosner euh, ban jàngat nga def si Allemagne ni mu décidé suspendre majeure parti wu opération militaire yi nga xam ne mu ngi ko doon amal foofule ca Mali jëm ci cadre mission bu organisation des Nations Unies sa xalaat tamit ci quarante neuf militaires yi nga xam ne dañ leen a jàpp ci territoire malien junte bi jàpp leen ñu bëri di laaj exactement ñu ni mel lan lañ fa doon def exactement est que dañoo ñëwoon pour gën a déstabiliser euh, Mali. waa xam nga euh, bu lu ni mel amee kenn du xam fan la dëgg féetee parce que réew yu nga xam ne xuloo nañu seen biir di avant sax affaire Mali bi am dañuy demali defa continuer xuloo xëy na man bu ma jàppee ni affaire yu Ukraine contre naa ci euh, Poutine ah xëy na bu Mali jegee Poutine man dama damay génne sama loxo ne dama ñëw Poutine mu ne nga àndax nga àndax sama noonu kon bàyyi naa leen ak moom loolu mën na ne waxuma loolu xam ne loolu mën na ne ba pare ni mu ko waxee sànq rek Mali bëri na woon coow lool lool lool lool lool avant affaire coup d'état bi am léegi coow yoo xam ne dafa am diggante réew yi dafay feeñ foofu ci ko ci ko territoire bi ñay xuloo ñay calculer lii ñay bëgg a déstabiliser te am na yoo xam ne. bëgguñu jàmm Mali xam nga am na organisation lëndëm yoo xam ne ñoom leen intéressé mooy lii ne nit ñi xeex comme ça duñu tal dara dul xeex ñu ñëw pompe pétrole jël lii jël lii dem suñu yoon te kenn duñu yëg kon dafa am lu ñuy wax enjeu géostratégique ñu bëri ñu ngi Mali mel ni koy ut jàmm te utuñu jàmm dañ fay ut mooy fexe ba ndax nit ñi jël ressources yi dem seen yoon kon daal day doon situation bu xaw a euh, jaxasoo Euh, li ci am solo daal mooy ñi nga xam ni dañu dox pour dañu jóg dox tànku jàmm te muy lu dëggu ci ñoom nañu toog waxtaan ngir situation bi bañu a yàqal maliens yi. Rosner ndax euh, njiit day dem waaye Mali day des kon nañu defar lépp ba Mali taxaw. voilà Rosner Ali Soutin Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di tamit jërëjëf ci question yi. voilà may fàttali ni docteur en nga nekk tamit consultant international. exactement